combat baa ngi noonu dox ci diggante Calcio ndeysaan ak Parisien Parisien yaa ngi bërek sama xarit yaa ngi bërek sama doomu nday yaa ngi bërek sama doom nday Calcio ndeysaan Calcio am na lu ñuy xool ci moom am na lu ko arbitre bi di wax ndeysaan nee na Kalso demal fële demal fomp fala Kalso laa <laughs> ilaaha illallaah ay lamba ngi nii lamba ngi ndeysaan làmba ngi Calcio ak Parisien bi mooy sama combat waaye Adama tay moom dinaa wax ki ma faral laaj ma ko ma faral koo faral Calcio laa faral ndax mooy sama mbokk ñoo bokk benn koñ ma nag ay waay ñaanal leen ma Kalso suñu mbëru koñ bi am ndam ñaanal ma mbëru Kalidou bi am ndam Adama gis nga kële ngay jàkkaar ci kaw te mu sol lu weex li jàpp gémmiñ gi zoomeel ma ko zoomeel Adama na gën dem na gën dem Adama ndeysaan yaay ndaanaan xoolal mooy Kalidou Kalidou ngi noonu moom Kalso moo ko fi indi ndaysaan gis nga moo jàpp gémmiñ gi nii Adama Galzo ko nëbb borom gémmiñ gii ngay seen mooy Kalidou doañee la waaye ndaysaan Galzo rek la bëgg arbitre bi sifflé na Galzo moo fete càmmoñ parisien moo leen fete ndijoor Galzo moo ëpp volume tuuti ndaysaan parisien cokkaas na parisien cokkaas na parisien Galzo Galzo ak parisien ay waay xaw ma sax lu may rapporter ndax dama tiit li may reporté xaw ma lan la Calcio parisien parisien daa wex ndaanaan la Calcio defal ndànk Calcio mépp na daa nar a dóor Calcio parisien cokkaas na parisien cokkaas na parisien cokkaasaat na ñoom ñaar du yomb parisien ak Calcio Calcio da ko bëgg a jàpp parisien xeex mooy avantage am ci combat bi ndaysaan boo bëggee dégg dëgg dama tiit xamatuma may wax ndax suñu mbër koñ mooy bëre Calcio mii ànd nañ dem fu ne ba ma demee Gàmbi këram laa nekkoon ndaysaan di fa jaabante cokkaas na mbëram Sénégambiya cokkaaso dooraan na Kalso ma cokkaat ma ngay sànni Kalso ma ngay sànni ndeysaan parisien Kalso tànk yi taxawatul ndeysaan ñoom ñaar Kalso parisien parisien door na ña ngay xeex Kalso jàpp na ko yóbbu na ko gaa yuuxu nañ Castors ko buux ayca ñi ngi ak euh, parisien nee na demal ardo arbi bi sifle waat na Castors ndànk parisien dóoraat na parisien ak Castors Castors parisien. non non mosuma ko ardo waaw mel baax. Kalso dem na Ardo loolu lañ soxla parce que ñu tamit ay bérekat lañu. Kalso dem na Ardo gémmiñ ko toj na. Eh, ah. lamb ji laaj rek maa ngi pare daal maa ngi pare lépp lamb ji laaj rek naa koy daal incha la arbitre bi dem na Ardo léegi ñëwaat. Ndeysaan Kalso parisien ñoom ñaar ñu ngi noonu. mbokk yi Calcio suñu mbër la mbëru suñu koñ la ñoo bokk benn koñ roi des arènes moo ko fa war indi Parisien cokkaas na Parisien cokkaas na Calcio Calcio dóor na laay laay la laa dóor ña taxaw Calcio Parisien mbaa dóor mu daanu du am Calcio na ko wala déet arbitre soufflé na de arbitre soufflé na de arbitre soufflé Kalso doyal na ci combat bi bët suulu na avertissement deux. ay ca Mansour diggante Parisien ak Kalso. Parisien attention Parisien door na. Kalso Parisien eh! Kalso. Kalso waaw waaw Kalso nga door na. buy Parisien rek dañ koy wasifaal. ak Parisien dañ koy Kalso. Kalso eh, jël na ku Kalso jël na ku. parisien dóor na ko parisien sonal na ko na ku attention mooy dóor kaso amul gar neex eh. parisien parisien ardo parisien ñëwal faju oh kalso moo ñëw ci ardo kalso dem na ardo kalso suufu R4 bi moo ubbeeku waaw waaw kalso dem na ardo kalso ngi noonu borom Parcelles Assainies arbitre yi sifflé waat na Calcio Parisien Calcio Parisien Calcio Parisien Parisien dóoraat nax day mel ni ku jëm ci tànk yi fekk jëmu fa jàpp bi moo ko arrangé Parisien ak Calcio Calcio jàppagul Parisien ngay dóor Calcio faywul Parisien ngay dóor ndeysaan Parisien ngay door Kalso Kalso amatul garde loxo ba wàcc na moytul door mu daanu mun naa am mu daanu mun naa Kalso Kalso bu fay woon rek Parisien li mu bëgg du am waaye Parisien dong mooy xeex ay waay suñu mbër waa koñ bi ay waay tey suñu koñ xam naa ni kenn lekkatul naanatul sama meeru koñ ya ndeysaan sama yaay xam naa lekkatul naanatul Kalso ajal sa garde bi waa lii lan la parisien ngi dóor nu mu ko neexee ndeysaan da koy dóor mu daanu dóor mu daanu dina dina ko dóor mu daanu Kalso faywul faywul parisien ngi dugg nu mu ko neexe di génn nu mu ko neex la dóor mu daanu dina am Kalso ci koom Carso ngi dox ci kawam Parisien xool ko ni koy xoolee dóor baaxul Carso dóorul dóorul Carso dóorul loxo ba wàcc na Parisien Carso jëli na ko dóor na ko béykit Carso sonn na de mënatul stade ba yëpp yuuxu na muy doxe mujjee na ñoo faral Parisien Carso combat bi metti na ci moom Parisien jël na avertissement Parisien am na deux avertissement attention. Eh, Parisien waaw mais waaw mais Calcio mi. Parisien Calcio. ma ngay door Calcio. Calcio lu ko dal. Calcio gay frère la. waaye Calcio mi dem naa yomb de ay sama xarit bi. waa Calcio doo baare. Calcio loxo bi sax mënatul aju. Calcio baareel. ooy Calcio ndeysaan lii metti na. ndeysaan suñu waa ko ñëpp a taxaw ci tribune bi. ndeysaan calcio parisien ndeysaan calcio parisien calcio sonn na sonn na waa calcio mi lu muy def nii waa waa jeex na kay day demaat ardo day dem ardo au Calcio. Parisien am na ndam ci kaw Calcio jox nañ ndam li Parisien Parisien am na ndam. maa ngi gërëm Kara di gërëm Père Ousmane Ndoye di gërëm Ousmane Noël Dieng waaw ak doomu ndeyam Ameth Saliou Dieng maa ngi gërëm bu baax a baax di nuyu Père Abbas Ndoye di nuyu gërëm Grand Pape bu Colobane kenn téléphonique aw ma fayam noonu la may jàppale Adim Fall Adim Fall Codé xam nga Cheikh Bara Ndiaye Mor gaa dama kontaan ñoom dañ ma logé Colobane appartement boo xam ne kenn du dugg suba ngoon. mais dama dama war a wane bopp. nee naa leen bulldozer laa war a soxla moom laa war a waaw parce que perkat daf ma ne poids lourd la. dee ko par benn gos gos te déchargé woo nga soog ñëw sonk euh, bëre ak moom fa laa jëmoon sax mais comme temps bi dafa xaw a kii te dem na bu matu moo tax jox fi temps dama doon ñëw sax bëri si kaw benn moment saa yu nekk ah, nag kilifa duñ nekk dañuy jàng lépp mais xawoon naa la mere nag yow. allez Parisien. mere naa la trop. Parisien mere naa la trop. da nga mere ma. Kalso ñoo bokk benn koñ. nga jàpp ko dóor ko def nii kanamam bi neexuma. waxoon naa du mën a ñàkk parce que dafa ma am lu ma def signature ba. jël sama alal yóbbu ko. te lii rek laa ko mënoon faje non faj naa ko bu baax sax nee naa la dama ko lu gën a pire laa koy tegal bulldozer laa soxla bulldozer bulldozer benn xam nga Modou Fass xoolal laaj parce que ñun ay nomb lañ dañuy war di laaj mais bulldozer dama koy laaj bulldozer laa soxla bulldozer laa soxla